jërë ngeen jëf mbokki Bawal Info TV mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñu nekk ci biir réew mi ak yéen nekk ci bitim réew euh, mbokk yi Ousmane Sonko njiitul Pastef démb dafa def benn sorti ci France 24 bi mu defee sortie ci France 24 bëri na loo xam ne wax na si wax na si lu jëm ci bundu gi ñu koy bundu moom ak nitam ak njabootam wax na ci li nga xam ne mooy décision bi président Macky Sall jël ne du bokk ci élection présidentielle 2024 Ousmane Sonko nee na dogal boobu président Macky Sall jël du lu exceptionnel maanaam nekkul loo xam ne lu rëy la wala lu ñuy dog di gis la ndax am na ay réew ci Afrique yoo xam ne gis nañ fa président ba doxalee lu mel noonu fu mel ni Ghana Cap-Vert Nigéria ak feneen ak feneen li tax nekkul loo xam ne lu rëy la Ousmane Sonko nee na loolu rek mooy li war a am ndax li war a am mooy respecter constitution bi te nee na loolu la président Macky def waaye moom usman Sonko nee na su dee nag président Macky li ko fi desee dafa bëgg jàmmarloo ak moom di ko persécuter di dal ci koom nam ko doon waxee maanaam dafay résister nee na bu ñu te jaloge waaye kenn du teg paaka ci bëleem ngir mu jaloge ak yow maanaam kenn du jëfandikoo justice wala ay forces de defence et de sécurité ngir xoqatal ko ngir mu mën a négocier Ousmane Sonko nee na bu élection présidentielle deux mille vingt quatre daf koy gañe premier tour léegi nag li tax tey ñu bëgg a wax ci li son Sonko wax mooy dafa am lépp li Ousmane Sonko wax dafay dafa am nag ay kàddu yoo xam ne moom la press bi gën a fësal tey presse ub Sénégal même presse bi nekk ci bitim réew. mooy fi Ousmane Sonko yi waxee ne bu ñu jéemee jëfandikoo justice def ay manipulation euh, maanaam di instrumentaliser justice bi ba jéem ko éliminer ci élection présidentielle deux mille vingt quatre mu ne élection du am ci Sénégal te Sénégal dina dugg ci kaawo loolu la son Sonko wax démb ñu gis ne presse bi. ñu bari dellu si nañ si am ñu bari ñu ko commenté kàddu yu Ousmane Sonko yooyu am ñoo xam ne jàpp nañ ne ay njuumte la yu Ousmane Sonko wax ak fi situation bi toll jamono ji léegi nag ci loolu ci lañ bëgg joxe sunu xalaat fiñ koy njëkkee mooy kàddu yi Ousmane Sonko yëkkati ci fàttali rek 2019 Abdoulaye Wade yëkkati woon na. kàddu yu mel nii euh, ne nañi ne dañuy taal bureau de vote yi ne dañuy taal bureau de vote yi pour élection ba am deux mille dix neuf nit nag dafay toll foo xam ne boo ko sësee ci miir bi di ko persécuter di ko di dalsikoom dafay dem ba dootul mën a contrôler sax dootul mën a contrôler léeg li muy faral di wax loolu euh, li dal Pastef li dal ñenn ci waa Pastef ba ñu yëkkati kàddu yoo xam ne day nekk kàddu yoo xam ne mën na leen a jural euh, ñu teg leen loxo comme li dal Biram lay Diop loolu dal na ay jamono PDS ay Baara Gaye ay maître Amadou sàll ak ñeneen ak ñeneen ndax ñooñu jamono jooju dañu leen a sësoon ci miir bi ba bu ñuy wax dootuñu contrôler li ñuy wax ndax bunduxataal gu ñu leen bunduxataal même taal bus yi ñuy wax nii sax ndawi PDS yi taaloon nañ fi bus ci jamono yi Karim Wade bi mu nekkee ci kaso bi ci buntu université te bu ñu waxtaanee ñun ñëpp su sunu biir gis nañu ne li opposition bi di wax muy kàddu yoo xam ne ñeen ñi jàpp nañ ne kàddu yu jégg dayo la mën naa nekk kàddu yu jégg dayo waaye ñu bari li leen ci jaaxal mooy kàddu yooyu ñu jàppee kàddu yu jégg dayo ñi nekk ci nguur gi dañuy wax kàddu yoo xam ne mën na koo ëpp waaye ñoom tim dara du leen ci fekk c'est loolu moo jaaxal Sénégal yu bëree bëri euh, li nga xam ne aussi bëgg nañ koo wax ak li Ousmane Sonko ko wax ñun gis-gis biñ si njëkk am mooy France 24 ñëwuñu rek def def ak Ousmane Sonko interview pour def ak Ousmane Sonko interview dama jàpp ne dafa am lu France 24 doon bëgg a xam même ci boo déggee journaliste bi ni muy poser question yi ak ni muy defee relance yi ndax bu ngeen fàttalikoo France 24 mos nañu interviewé Ousmane sonk doon ko doon ko laaj buñ la arrêté lan mooy xew ak buñ la éliminé ci ay élection am lu leen Ousmane Sonko tontu woon ci lu jëm ci wàllum résistance ak du ñu nangu ñu ñi euh, maanaam duma xalifa Sall duma Karim Wade léegi li tax France 24 interviewé Ousmane Sonko ndax gis naa ne léegi presse étrangère bi li nguur gi wax rek doyu leen ndax bi président Macky Sall ne du nekk candidat ñu bari dañu def ay commentaires ñi fare ci nguur gi wax ne stabilité am na tension politique bi jeex na mbirum Sénégal gi yépp mbirum troisième candidature la woon ba ñu médiatiser ko ci biir réew mi ak ci bitim réew te ñun ñu nekk ci Sénégal xam nañ ne tension politique bi du troisième candidature Macky Sall rek euh, même bu dee troisième candidature Macky Sall mënoon na indi tension ci Sénégal waaye éliminer Ousmane Sonko mën naa indi tension ci Sénégal léegi nag France 24. dama gëm ne man dañu ñëwoon pour xam version Ousmane Sonko lan mooy posture Ousmane Sonko te gëm naa ne Ousmane sonk mi leen doon tontu xam na lan moo yëkkati France 24 waaye xam na lan lañ leen di jox pour ñu yóbbu ko te communication bi Ousmane Sonko def damaa gis ne communication waa waa bitim réew ñoo ko moom communauté internationale bi la Ousmane sonk doon communiquer. maanaam dafa am lu France 24 bëggoon a xam am lu Ousmane Sonko bëggoon a xamal communauté internationale bi ndax France 24 ñoom xam nañu ne ñoom xam nañu ne tension bi ci Sénégal mbiri Ousmane Sonko def cee bokk moo tax ñuy laaj Ousmane Sonko Ousmane Sonko moom tim tontu leen xamal leen na leen. bu ñu leen gëmloo na leen troisième candidature Macky Sall moom rek mooy tension politique moo indi tension politique ci réew mi wala bu Macky Sall ne déw ma tension bi jeex na Ousmane Sonko loolu leen bëggoon a xamal na leen du caagi ne Macky Sall présenté wu rek tension politique bi jeex na ba léegi tension politique baa ngi fi loolu la leen Ousmane Sonko bëgg xamal moo tax mu ne leen la fi nekkoon jógu fi bu ñu instrumentaliser justice pour éliminer ma Sénégal dina dugg ci kawo te loolu Ousmane Sonko koy wax waa bitim réew la koy waxal pour mu xamal leen na leen bu leen kenn gëmloo na leen tension politique bi dafa jeex ci Sénégal man loolu euh, bokk na ci li nga xam ne tey gis naa ko ci communication bi te ñi nga xam ne tey ñooy waa communauté internationale bi bëri na si ay kuréel yoo xam ne dañu santoon état bu Sénégal ngir mu fexe ay élection yoo xam ne yu apaisé la te ñi nekk ci Sénégal ak ñi nekk ci bitim réew xam nañ ne élection yu apaisé mënul am pour ñu éliminer Ousmane Sonko élection yoo xam ne euh, yu apaisé ndax ndax presque étrangère bi liy xew Sénégal di leen a intéressé liy xew Sénégal dafa intéressé presse étrangère bi loolu boo communication bi son ko def dama gis ne dafa communiquer ak waa communauté internationale bi léegi nag li Ousmane Sonko wax ne bu ñu ma éliminer instrumentaliser justice bi élection man naa élection du am te Sénégal dina dugg ci kaawoo dama jàpp dama jàpp ne Ousmane Sonko am na loo xam ne moomu ko ci boppam maanaam maanaam projet bi day projet boo xam ne dama gëm ma ne Ousmane Sonko moomu ko te am na ci loo xam ne Ousmane Sonko mënu koo décider ndax ñi gëm projet Ousmane Sonko gëw ma ne dañuy seetaan Ousmane Sonko mu def ci lu ko neex wala ñu teg ko ci wala ñu teg ko ci ay mbir ñuy seetaan Ousmane Sonko di ko nangu gratuitement ndax bu ngeen ko usman Sonko taxaw na fii ne. ndaje mi nga xam ne tey opposition bi ñoo ngi koy amal bu fa kenn ñëw ba ngeen yuuxaloo ko te pourtant ndaje ma ba mu amee xalifa Sall ba mu fa ñëwee ak Pape Djibril Fall yuuxaloo nañ leen te Ousmane Sonko neewoon na bu leen kenn yuuxaloo loolu li muy firndeel mooy Ousmane Sonko dafa ànd ak ñoo xam ne ñoom tim dañu am sañ-sañ ci mbir mi maanaam duñu ñoo xam ne rek dañu jóg rek gëmm seeni bët ànd ak Ousmane Sonko dama gëm ne ñi ànd ak Ousmane Sonko bu Ousmane Sonko bëggoon a jaay projet bi sax ñoom duñu ci ànd maanaam dafa am loo xam ne mbir mi daleen leen koo jaral tey dégg-dégg bi ma ci am mooy même bu ñu éliminé woon Ousmane sonk même bu Ousmane Sonko deful benn déclaration wala sax mu taxaw ne bu kenn manifesté gëm naa ne boo muy tuulee dina am ñoo xam ne dinañu jóg wane seen naqar pour wane ñenn ñi fi leen mbir mi toll ndax dama jàpp ne dafa am ñu bëri ñoo xam ne euh, xaw ma dañ koo xam teg ci seen tànk wala dañ ko xamul wala dañ koy soofantal waaye ñi ànd ak Ousmane Sonko dafa am loo xam ne moom la leen mbir mi jaral léegi nag li Ousmane Sonko wax ne bu ñu ko éliminer Sénégal élection du fi am man gëm naa ne du c'est pas la première fois ngeen di doog di dégg kàddu yi ci waxuma leen sax ci Ousmane Sonko man dégg naa. tey lu mel nii Habib Sy wax na ko keroog Habib Sy nee na avant Ousmane Sonko koy wax lii Habib Sy nee na maanaam euh, problème central bi équation centrale bi pour Sénégal am stabilité pour Sénégal dal pour ñu organiser ay élection ci Sénégal équation centrale bi régler kaawu Ousmane Sonko la Habib Sy keroog wax na lu mel noonu mu ne président Macky Sall bu la kenn gëmloo ne mën nga organiser ay élection sans Ousmane Sonko te Habib si moom wax loolu ku bëgg jàmm la mais Bouba Ndour Bouba nduur wax na lu mel noonu nee na bu ñu tegee loxo Ousmane sonk wala ñu empêché ko mu dem ci ay élection jafe-jafe mën naa am ci Sénégal oustaz Assane Seck nee na fi Ousmane sonk bu ñu ko bàyyee mu dem ci élection daf koy gañe buñ ko teree mu dem ci élection dëkk bi mën naa yëngu kon du lu bees kàddu yi te gëm naa ne bari na ñoo xam ne waxuñu ko ci kaw waaye ñoo ngi koy dégg ci suuf léegi nag lan mooy solution bi dama jàpp ne ñun nii di wax ak yéen ñi déglu kenn ku nekk dafa kenn ku nekk ma ngi bàyyi dara ci biir këram ngir bëgg jàmm am am na ñoo xam ne ñoo ngi maslaa ci seen biir kër ngir jàmm am maanaam bëgg ngeen seen biir kër yi am jàmm te biir kër yi bala moo am jàmm il faut réew mi am jàmm lan mooy tax réew mi am jàmm ñu jàppale président Macky sàll wax ka li nga xam ne mooy mooy dëgg ndax jàmmi réew mi ñun ñépp la war a soxal bu nu jàppee ne jàmmi réew mi président Macky sàll rek la war a soxal ñoo ngi nax sunu bopp wala Ousmane Sonko euh, dama gis Alioune Tine mu bind ne président Macky Sall dafa war a waxtaan ak opposition bi waa yeewi loolu dëgg la dañu war a waxtaan beneen bi aussi mooy président Macky Sall ci boppam képp ku koy wax ne ko mën nga organiser ay élections ci Sénégal Sénégal am dal sans Ousmane Sonko yaa ngi koy nax ndax président Macky Sall dama ko déglu ci ndaje mi ñu doon amal mu ne investissement bi njëkk mooy jàmm sécurité état de droit loolu dëgg la dama jàpp ne ñi bëggut jàmmi réew mi ñu bëggut jàmmi réew mi mooy ñiy wax naan nañu éliminer Ousmane Sonko ndax président Macky ni mu def ba Karim di bokk te amel Sénégal 138 milliards Khalifa di bokk amel Sénégal 1 milliard président Macky Sall war na koo mën a fexe ba Ousmane Sonko bokk ci élection yi loolu président Macky képp ku bëgg réew mi da nga war a wax ak président Macky mu def kem kàttanam loolu bu ko président Macky Sall defee dina réussir loo xam ne lu rëy la naam bëri na lu xew ci nguuram lu ñu bari rafetluwul waaye bu présenté wul fexe ba Ousmane Sonko ñi war a bokk bokk ci élection yi boobaa dina nekk loo xam ne dina ko dina dina raxas lu bëri lu mu defoon ak ñoñam ni ay erreur ci ci ayam na président Macky Sall jéem loolu te Ousmane Sonko ba ñu te waxtaan mais moom Ousmane sonk wax na ko ba ñu te discuter ba ñu te waxtaan li mu nanguwul mooy koo xam ne da ngay teg paaka ci boleem na ko danañ waxtaan par force mais man gëm naa ne président Macky Sall bu Ousmane bu yëkkatee ay jéego yu sincère dina waxtaan ak Ousmane sonk te tey bu bàyyee ñi nga xam ne tey jàpp nañ ne ay détenus politique lañ mbiri dossier yii ñu xool nan la ñu koy saafara ndax fii réew mi luñ fi mënta waxtaanee amul yow Karim Wade ñu ne dafa luubal alalu réew mi yow woote nga sab jaloo fexe ba mu nan day bokk Khalifa ñu ne dafa luubal alalu réew woote nga sab dialogue fexe ba na dina bokk Ousmane Sonko moo xam ne te Karim ak Khalifa ñoom réew mi lañ amal problème Sénégal Ousmane Sonko nit la amal jafe-jafe yow ñu ne ko violé woo defoo menace de mort mais loolu Sénégal yi danañ ko comprendre bu président lijjante woon bu Ousmane sonk bokk loolu la Sénégal yi gën a comprendre que kaawu Khalifa Sall ak Karim wàdd mais pourtant Sénégal yi comprendre nañ kaawu Khalifa ak kaawu Karim wàdd mais asama kon bu président fexe woon ba régler kaawu ki nga xam ne tey moom mooy Ousmane Sonko te amul kenn ko war ñaax président Macky Sall muy continuer. jàmmaarloo di am digganteem ak Ousmane Sonko Sénégal jamono ji ñu toll Sénégal soxlawul loolu Sénégal goo xam ne te Ousmane Sonko Sénégal nekk ci jafe-jafe du lu ko gënal du lu ko gënal te gënalul kenn koo xam ne yow jàpp nga ne boo demee ay élection da ngay gañe yow bëggoo réew mi di nekk ci ay réew mi di nekk ci li nga xam ne tey mooy ay jafe-jafe keroog Habib si wax na ko nee na Ousmane Sonko boo ko éliminé ma ngi mel ni nga éliminé ay million yi millions yi sénégalais te loolu loolu mooy li nga xam ne tey euh, moom mooy moom mooy dëgg man ma gis ne euh, président Macky Sall dafa am ñoo xam ne ñoo war a jóg gën ko gën ko may doole gën a mën a waxtaan ak moom te euh, ñu nit warul warul sës maanaam sës maanaam waxtaan moom war na am ñi war nañu gis Ousmane Sonko ñi war nañu gis ak président gisante ak président Macky Sall ndax comme ñun Ousmane Sonko moom ci boppam xam na ne su bokkul ci élection Sénégal mën naa dugg ci kaawam te man gëm naa ne même ñi ànd ak président Macky ñu wax ko ak ñu ñàkk koo wax xam nañu popularité Ousmane Sonko xam nañu ñan ñoo ànd ak Ousmane Sonko xam nañu lan mooy xew bu ñu bëggee éliminer Ousmane Sonko mais Sénégal bu nekkee si jafe-jafe. amul kenn koo xam ne di nga ci gañe sénégalais yépp ci perte mais te bu boobaa ci waxtaan lay mujj kon nañu njëkkee ci waxtaan te président Macky Sall mii nga xam ne tey euh, am na ñu mu àndal mais ñi ànd ak moom nañu waxtaan ak moom ñi ànd ak Ousmane Sonko waxtaan ak Ousmane Sonko te ñoom ñaar ñëpp man gis naa ne bëgg nañu waxtaan mais Ousmane Sonko dadi rek am na loo xam ne da ko mënul ndax am na ñi ànd ak Ousmane Sonko ñu dugaleen ci kaso bi kenn xamul nu ñu toll. ñooñu dañoo bëri nga jël ay dossier teg ci ndoddam say ñooñ continuer di ko wax liñ koy wax nga jël nga barricade ko ba mun te génn kooku nooy dialogue ak moom boo bëggee dialogue ak moom kay ay farandoom ñu tëj leen ci kaso bi ñu jàpp ne nit ñi politique lañ nañu leen libéré blocus boobu ñu dindi blocus boobu dossier yi ñu xool nan la ñu koy réglé loolu su amee dialogue mën naa am waxtaan mën naa am mais nit ki mënul dialoguer ci yenn situation yi te tey Ousmane Sonko wax na ne moom amul kenn ku muy topp ëllëg te loolu am na expérience boo si Ousmane Sonko jàngee ci président Macky Sall mi ñëw ñu tàmbali di topp waa PDS tey gëwuma ne man Macky Sall tey bu Ousmane Sonko wuutu woon dina topp président Macky Sall ci yenn yi loolu Sénégalais yi sax duñ si far ak Ousmane Sonko duñ ko ci far ndax dafa am lu Sénégal di xaar. te maanaam mënuñu wax ne euh, ñi ànd ak président Macky Sall yëpp dañ leen di bàyyi ñu dem même bu dul Ousmane Sonko sax xanaa keneen ko fi ñëw fekk na fi ay rapport yoo xam ne alalu réew mi la nañu bàyyi justice bi mu def liggéeyam tranquillement président bi bañ am si moom influence justice bi liggéey ak xel mu dal ku ñu jàpp ne yow danga jël alalu réew mi nga delloo si alalu réew mi loolu man pour man aayul li Sénégalais yi bëggul mooy di bundu xataal nit te man Sénégalais yi ma xam képp ku fi ñëw ëllëg di instrumentaliser justice bi pour muy dal ci say kaw adversaire wala nga leen di éliminer say adversaire boobu sénégal yi mënuñu ko nangu sénégal yi amuñu problème nga yóbbu adversaire politique ci yoon waaye dañuy bëgg bàyyi yoon def liggéeyam tranquillement président bi bañ si am benn influence kon daal en tout cas ñun fi ñuy daanale mooy lu dul jàmm jàmm moo ko gën te président Macky Sall euh, man dama bokk si ñi gëm ne warutoon a bokk ci élection présidentielle deux mille vingt quatre pression lañ ko teg wala teguñu ko pression en tout cas déwuma gi mu wax maanaam soulagé na ñu bëree bëree bëri soulagé na sax ñi nga xam ne tey ñooy commercant yi ñu si doon yàqule. Euh, euh, soulagé na parent d'élèves yi ak examen yi nga xam ne moom lañu nekk tey su waxoon candidat laa jafe-jafe mën na am ci réew mi te jafe-jafe yi bu boobaa ay sénégalais ñoo si loro kon fexe na respecter constitution bi ba Sénégal yi lor wuñu loolu euh, buñ ko ci félicité wul sax ñu encouragé ko si comme ni ko Ousmane Sonko waxee ne d'accord nañu félicité ko encouragé ko ci act bi mu posé waaye mu wéyal ko ñu encouragé ko ngir mu wéyal ko te man jàpp naa ne euh, discours bi ma dégg son ko wax démb discours la boo xam ne bu responsable la waaye li mu wax ne bu ma bokkul euh, Sénégal day nekk ci jafe-jafe loolu en fait du loo xam ne euh, Ousmane Sonko ko njëkk a wax da doon xamal rek waa communauté internationale bi ne leen situation bi fii la toll nuñ mën a def nag ba décanter situation bi jàpp naa ne lu baax la. même tey ñi nga xam ne tey ñooy waa France 24 waa bitim réew. bu ñu xoolee interview bi Ousmane Sonko def ak keroog bi président Macky Sall defee déclaration discours à la nation war nañu xam popularité bi Ousmane Sonko am. Euh, keroog bi président Macky defee discours à la nation booba ak léegi man na depuis lundi la woon lundi mardi mercredi jeudi tey di vendredi lundi ba vendredi bi président Macky defee discours à la nation ci France vingt bi biñ ko reprendre. trois cent six mille deux cent cinq ñoo ko suivre maanaam trois cent six mille deux cent cinq Ousmane ko def démb 7 juillet benn entretien ak France 24 moins de 24 heures ma ngi ci 948 mille 735 presque un million de vues si moins de 24 heures bi Ousmane Sonko def na lu jege un million de vues président Macky Sall lundi ba vendredi. am lu toll ci trois cent mille vie ak lu teg kon lii rek firndeel na popularité bi nga xam ne Ousmane Sonko euh, am na ko ci euh, am na ko ci Sénégal te lii aussi nangu ko wàññiwul dara.